Thank <laughs> you. fu ñu koy njëkkee dañuy dem si kële nga xamante ni mooy Abdoulaye Sylla Ecotra su ñu nee Abdoulaye Sylla Ecotra suñu xel day dem ci li nga xamante ni ni fan yi mi ngi lëmbee dëkk bi muy C50 PN ginnaaw bi nga xamante ni C50 PN génn na kii di Abdoulaye Sylla doon candidat aux prochaines élections présidentielles de 2024 coow lu bëre mi ngi ci juddu ginnaaw ñu nee Abdoulaye Sylla ñi ngi ko dippee li nga xamante moy émergence de figure politique et économique, ban n'opi daal di exploser li di toile sénégalaise bi tay suñ ko jappé dal ben figure la bo en tant qu'entrepreneur, en même temps une figure euh, politique et économique qui explose la toile sénégalaise batay suñu sukkandikoo ci journal bi mi ngi xamal ni que semaine yi ñu génn lii di toile sénégalaise bi dafa gis benn émergence jëm ci benn personnage boo xamante ni personnage politique la ba noppi dakk di yëngu ci wàllu économie muy kii nga xamante ni mooy Abdoulaye silla di fondateur bi nga xamante ni mooy mouvement bi nga xam moom la ñuy dippee C50 PN gars yi xammee ko muy benn club boo xamante ni à 50 pour cent de préférence nationale la suñu sukkandikoo ba tey ci stratégie digitale bi nga xamante ni révolutionnaire ba noppi daal di jël li nga xamante ni mooy adduna bi yëpp teg ci seen bëgg réussir na benn idée boo xamante ni idée bu bees tàq la ci kër bi nga xamante ni moo nekkoon ci biir polémique yi ba tey nañu jàpp ni que daal lii di C50PN benn club la boo xamante ni 50 pour cent yëpp ay entrepreneur la ñu su ñu nee entrepreneur moo ñoo xamante ni si secteur privé bi la ñuy yëngu ba noppi doon national mu doon ay sénégalais 100 pour cent du doon benn étranger. loolu la ki nga xamante ni mooy candidat au présidentiel de février 2024 di Abdoulaye Sylla di directeur euh, président directeur général Ecotra ba noppi. teg mouvement boobu di 550 PN mom ñing ko gëna xam ci lo xamanteni semaine yi passé genn na bi mu ci ben centre attention bo xamanteni ci ay plateforme digitale la grâce ak ben vision bo xamanteni amna ko jëm ci walu économie mu centré lépp jëm ci contenu bo xamanteni contenu local la manam moy consommer local manam li ñi liggéey fi ay nit yu nekk fi ba pare di ko muy ben stratégie digitale bo xamanteni daf ko concevoir pour propager lépp lo xamanteni jëm na ci vision bi nga xamanteni yëkëti yëkkati na ko ba nopi mu ébranler li nga xamanteni moy sen numérique politique ak économie bu Sénégal batay ci promotion bobu manam muy ben promotion boo xam ne ko dippee made in Sénégal bo xamanteni dafa nek ci ben xol bo xamanteni démarche yëpp du dara lu C50PN batay li ñi xamne muy C50PN. organisation la biñu fondé ki fondé mi ngi tuddu Abdoulaye Silla. lepp lu ko ci taxaj jog moy promouvoir ben politique économique bo xamanteni dañ koy accès ci ay compétences expertise nationale ba nopi club bi visé encourager lepp lo xamanteni utilisation bien la wala ay matériaux yo xamanteni dafa jëm ci ay capital humain produits yo xamanteni localement fi lañ koy defaree ni diversifier ko jëm ci ay industrie ba nopi daal di favoriser li di croissance économique biñu basé ci souveraineté bi nga xamanteni mom moom la ñu souveraineté nationale bi nek fi ci Sénégal muy benn campagne digitale bo xamanteni dafa ébranlé lépp loo xamante ni muy si Sénégal ndaxte suñ ko xayma lu plus de 4 millions de vues yoo xamante ni gis nañ ko ci wàllu digital bi ginnaaw bu mu ko lancé muy campagne boo xamante ni ginnaaw bu mu ébranlé ñi nga xamante ni mooy Sénégal di 550 pn xamal na ni que daal déployé na benn campagne de promotion boo xamante ni lu gën gaaw pour captiver li nga xamante ni mooy attention sphère numérique bi

ba ci Google Sénégal so demee ñi ngi lay xamal ni que amna lo xamanteni ben augmentation significative bo xamanteni ay requêtes yu lié wu personnage ki nga xamanteni ba tay ji kenn xamuko kenn gisuko ndaxte dafa yag nek ci discrétion muy ki nga xamanteni moy mooy Abdoulaye Sylla tey mu bok ci top 10 yi nga xamanteni so don recherche ci Google turam daf ci génn. ba tay ñi ngi xamal ni que li di toile sénégalaise bi suñu xolé mi ngi soutenir ben polémique lu waral polémique bobu moy notoriété croissant bi nga xamanteni 550 pn bu Abdoulaye Sylla teg na amul ben controverse mu doonoon ay créateurs de contenu yo xamante dañ leen suivre ci réseaux sociaux yi ba noppi lancer ben euh lancé ben combat bo xamanteni lepp mi ngi jëm ci campagne bo xamanteni daf koy accentuer wu jëm ci walu jënd ñi nga xamanteni moy euh, influenceur yi wala utiliser leen pour ñu récolter ay parrainage ginnaw bu mu waré def campagne électorale ginnaw bi nga xamanteni candidat la si prochaine élection présidentielle batay mi ngi proférer ay menaces yo xamanteni à l'encontre de ñi nga xamanteni ay créant lañu ba nopi bokk ci climat bo xamanteni dafa tendu suñu xolé lu ëpp ci vingt sept vidéos publié nañ leen ci kaw géné géné bib noppi mi ngi générer ay énormes controverses yo xamanteni ni day alimenter avantage ay discussion ci ligne bi batay ñi ngi xamal ni que li wan mo waral surcharge de succès bi nga xamante ni am ko muy site web bi nga xamanteni 550 c pn def na ko mu jàkkaarloog ben affluence massive jëm si wàllu trafic ba noppi am ay mesures yoo xamante dafa bokk ci benn campagne pour ñu lancer li nga xamante ni mooy mouvement bi di 550 pn boo xamante ni du mouvement politique mouvement la boo xamante ni ay entrepreneur national yu noom Sénégal ñoom ñoo ci nekk ba noppi di gagné benn popularité ci site web boobu muy mouvement boo xamante ni commencé na def affluxam bu baax a baax jëm ci wàllu trafic soo xoolee ay milliers de visiteurs ñoom ñooy yàkkamti pour dugg ci biir xam lan moo xew ak Ablaye Sylla lan la war a teg muy idéologie bi nga xamanteni 50 PM teg na ba nopi ñi daal di koy initier concevoir ko ci ben trafic bo xamanteni dafa modéré ba opinion daal préparer les lo xamanteni dafa nek ay fréquentation jëm ci résultats yi nga xamanteni dañ ko am à temps réel jëm ci ben chargement bo xamanteni de. day jëm ci walu difficulté accès ci site bi ba nopi permettre que ay panne temporaire loolu yëpp taxul face à cette situation équipe technique bi nga xamanteni ki di équipe technique Abdoulaye Sylla ñi yor 150 PN liguey nañ ci bu baax baax ba bayyi gën a renforcer lépp loo xamante ni ay serveur la pour optimiser li nga xamante ni mooy site bi ba nga xamante ni tey li nga xamante ni visiteurs yëpp ñu ngi fay daw di fa dugg ñenn ñi nag amaana suñu bëggee saboter dañuy jéem a yàq loolu parce que dafa innover indi loo xamante ni lu bees tàq la fii ci réew mi jëm ci wàllu benn politique boo xamante ni politique économie lañ ko tuddee ba noppi mu accenté ko lépp loo xamante ni dafa jëm ci made in Sénégal ba tey ñu ngi xamal ni que daal suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy C50 PN ginnaaw bi ñu adapté lépp loo xamante ni jëm na ci résistance indi na ben engouement numérique ba xamanteni tay suñu xolé en ligne information yi nga xamanteni 50 pn mi ngi koy jot mi ngi don lo xamanteni dal day déluger ay appels yo xamanteni suñ ko totaliser dina dem ci 3000 appels si si moyen de deux jours madame ñaari fan dinañ ci jot lu melni 3000 appels lepp pour ñu exprimer un souhait pour adhérer ci li nga xamanteni moy campagne bobu ginnaw bi ñu obtenir ay avantage ci information yi ki ko témoigné nak di woné enthousiasme ak engagement am jëm ci walu public sénégalais envers li nga xamante moy campagne révolutionnaire bi nga xamante dafa lèr nañ mu doon ben campagne bo xamante ni 50 pn initié na ko ba nopi dal di réussir engagé ben large mouvement bo xamante expérience bobu dina woné lepp lu jëm ci walu puissance jëm ci médias sociaux wala ci ben stratégie bo xamante numérique la ñu orchestrer ko pour influencer li nga xamante moy opinion publique de façon pour que paysage politique économique du Sénégal bi gëna mëna changer a changé ba tey ñu ngi xamal que di Abdoulaye Sylla ak mouvement bi di PN mi ngi démontré ne fii ci Sénégal que lepp lo xamante touf bu euh gàncax ga manam souf bu fertile la manam bo des day nangu jiw nangu lepp moy ay idées novatrices yo ay personnalités yoo dañuy inspiré wu ki nga xamante moy Abdoulaye Sylla pour que mu remporte li nga xamante moy guerre numérique bi jàkk ci aduna bi muy question bo xamante dafa jëm ci ay identité yo xamante suñ ko exalté Abdoulaye Sylla de manière dina réussir li nga xamante moy captiver lu gëna a gaaw li nga moy attention ay projet yo xamante de dafa wara toutefois que mu présenté ou information bo de officielle te l'époque qui ci ben communiqué bo xamanteni mystère buy persisté jëm ci approche li nga xamanteni moy élection yi jëm pendant quelques mois sénégalais yi di xaar impatiemment li nga xamanteni mom lañu bëgg découvrir ci prochaine étape bi muy ben histoire bo xamanteni suñu suñu da fay man luy évoluer liñ leen mëna jappal dal li nga xamanteni moy Abdoulaye ñu dippé ko l'émergence d'une figure politique et économique bi exposé li nga xamanteni moy la toile sénégalaise ginnaw bi mu téggé slogan bi nga xamanteni mom lañu dippé C50 PN mu cette toile bu bëri influencer influenceurs yeeg yëpp nga xam ñu ngi ciy dugg mu doonoon loo xamante tuñ leen ko xamalé du mouvement politique du parti politique candidat aux prochaines élections présidentielles benn mbébét la muy Made in Sénégal Made in Sénégal bobu nak club la bo xamanteni lu 50 bi yëpp soo ko ay doomu Sénégal ñofi nek juddo Sénégal màggee Sénégal doon ay entrepreneur local ñom ñoo bokk xalaat bokk gis-gis pour xol naka lañuy développer développé li nga xamanteni moy suñu Sénégal fi ak 2029 ginnaw bi ñuy yoré dem ci élection 2024 yi mais ñen ñi dañ ko jël ben campagne de sabotage ben campagne de dénigrement té tay lu mu innover jëm ci walu technologie jëm ci walu digital jëm ci walu numérique ba ci réseaux sociaux ñom ñep mënuñu ko té affluence bu mu am tay kenn amu ko tey soo xoolee ci Google recherche yi yaakaar naa ne Ablaye Sylla bokk na ci dix ñi nga xamante ne ñoom la ñu gën a seet ginnaaw bi gars yi bare amee ay information ci biir ñu ngi demandé wu pour adhéré wu ci li nga xamante ni mooy C50 PN bu Abdoulaye Sylla